bon asalaamaaleykum mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant di nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi di nuyu ñëpp di leen ziar di leen bëggee lu bëree bëree bari di nuyu ñëpp daal bàyyi ñu kenn muy euh, jigéen di xale di mag di ndaw ñëpp ñu ngi leen di nuyu. di leen wax euh, tey nag macha allah Assane dafa génn ci beneen domaine tey euh, dañoo ñëw ci li nga xam ni mooy ziar général bi nga xam ni ci lañ jëm muy le 21 ñu koy def chaque année. di ci ànd ak euh, ay mouvement yu bëri di ci ànd ak tamit ak euh, ñi nga xam ni ñoo diriger li nga xam ni mooy euh, diine gi nekk biir Tivaouane ak lépp loo xam ni jëm na ci wàllum ziar beeg yëpp di ci ànd ak ñoom waaye nag rawatina ñi nga xam ni ñooy waa tur bi. groupe solidarité. groupe solidarité macha allah di jéggalu nag ñu ñooy groupe waa solidarité ma seetlu ni euh, chaque année ci ziar général bi ñoom dañuy euh, joxe ndox fi nga xam ni fii lañ taxaw nii muy buntu jumaa yi Serigne Babacar Sy ci côté penku bi en face résidence bi chaque année dama leen fiy seetlu di leen fi gis te dañuy boole liñ am ak liñ ñàkk ak lépp lu mu mënti doon ñu jox leen ñu bañ leen a jox lépp lu ñu am dañ koy indi joxe ko. te jour boobu du ñàkk ni am na ñoo xam ne tamit dañuy woor ñu yëkkati ndogu jox leen waaw di servi tamit ndox ci tàngaay bi yooyu noonu te ku ne xam na ni ziar général euh, day tàng macha allah ñu ngi lay ziar mbaw waaw Assane ñu ngi lay delloo ziar bu baax <coughs> euh, di ziar mboolem koo xam ne rek yaa ngi suivre euh, sit bii di étoile TV di nuyu mbokki waa réew mi waaye nag di nuyu mbokki waa Tiwaawan yi nga xamante ni fi lañ dëkk. Euh, tey boo ñu boo ñu boo ñu dékkee micro dinañ sawar wax ci ziar bi euh, muy ziar Serigne Babacar euh, nekk ziar boo xamante ni bis la bu màgg fii ci Tivaouane te saa bu musee ñëw waxuma Tivaouane mais Sénégal gépp dañ koy waaj rawatina àdduna groupe bi nag nga gis nii ñuy taxaw moom mooy groupe solidarité solidarité ci sunu biir waaye solidarité jëf te yàlla tax. yàlla dogal mu nekk euh, groupe bu mag waaye nag <clears throat> tey ñii ñoo teew muy kii ci sama ginnaaw mooy Hadji Ngagne Diomboxo euh, kee mooy Hadji Mansour Guèye nekk ko ordinateur bi euh, soxna mama moo nekk nii Babacar Mbaw moo nekk na lee taxaw ñoom itam macha allah mu nekk groupe boo xam ne nag li ko sos ci xadara bi la sosoo ndax événement yu mel nii ci lañ doon tàmbali bi ñuy gën a nekk tout tànk daan jël ay kafe ak ay meew daan ko séddale ci événement yi muy moo xam muy ziaru korité moo xam muy asuraar moo xam muy événement bu am wala moo xam muy ziar général muy événement bu am ci kër gi dañ ko daan taxawee ba mu des gàmm ndax li tax gàmm duñ ko taxawee mooy ñun ñëpp kenn ku nekk yaa ngi ci liggéey ba yaa ngay teeru gan ña euh, ren nag ñu dëgg malaat ziaru général ñu ni nañ ko waajaat comme niñ ko daan waajee bu ngeen gisee nag ñu ñu génn ren te mosuñoo génn euh, mooy que xaj na dañaa réew mi moo fi toll rek waaye yàgg nañ koo def yàgg nañ koo def lool boobu ñu ñëpp ay tuut tànk lañu te kenn mosuñoo gis benn yoon ci ay image waaye ren nag dañ cee dañ cee dañ cee bëgg benn benn benn benn mbir boo xamante ni ndax dañuy gis fii nit ñu bari dangay gis ñu gaare oto ndox rek daal di koy séddale ci lu matul waxtu daal di dem nga gis ñu yor ay ñam sédélé ko ci lu matul waxtu daal dem euh, té ñun fé moy sunu campé euh, ñu bari daan nañ ñu wax nañ leen di toggu gaay ni ax ah, toggu mom nañ ko gum nonu ndax ku lek ku ne di nga naan loolu motax diiru fukki at yi wala lu ko upp sa bu ñu ñëwé fé la ni campé tek suñu ay bagi ndox yu bari bari bari tek suñu ay syndicat euh, buntu buntu bare bu ne ñu tek fa ben syndicat tek fa ñetti di ci def ay glace di seddal sase yi nga xamante ni moom lañ teg fee muy bag fee la ñuy teg frigo yi di ko seddal bu waxtu tisbaar bi jotee wala nit ñi nga xamante ni ñoom ñooy rang pour dugg ci barabu sëñ Babacar bi ñu leen di jox ndox yi ñoom ñu koy naan euh, ñu gis ni nag nit ñi bari dañuy jël rek daal di joxe euh, ñu doon dagaan rek ni leen képp koo xamante ni yaa ngi ci doomu Tiwaawan wala lu ko wër wala képp koo xamante ni amati nga looy joxe te mu biir nee ne amoo ku la ko mën a joxeel wala boog leer na ni joxe bi ngui koy joxe fa nga bëgg mu egg fa du fa egg inshallah allah ñu fekke fi ci buntu esplanade bi ni inshallah allah tege ci sunu loxo di di ñi ci wara a jot ñëpp dinañ ci jot inshallah rabbi inshallah bon ñi ci wara jot ñëpp euh, dinañ ci jot di kontan bu baaxa baax de ngeen comme nim ko waxe kon neena len ziar general bu ngeen ñewé li wër ak euh, leneen la ca topit lepp syndicat bu ngeen gis wala go bu ngeen gis rek ñu upp ko jël pot tek ci ñi ñoko waral ñu ngi nii taxaw xale yi ñoo ko waral ñoom ñooy def loolu noonu waaw bu kenn jaaxle te it euh, bu kenn am njàqare ci loolu noonu naan ndox mi baaxul wala ndox mi nangam wala dara yooyu noonu ndox mi baax na pour nit ñi naan la moo tax ñu teg ko fa fàtte ko fa ba benn instant ñu ñëw xool bu jeexee ñu rempli waat mu fees waaye ginnaaw loolu depuis ñaata at yéen a ngi def lii ak euh, euh, mouvement bi depuis ñaata at mi ngi yëngu ci lii waaw yàgg na nag yàgg na lool mhm. mais liñ ci gën a mën a ràññetle mhm. mooy bi ci gën a njëkk ëpp doole mhm. boo xamante ni fii la muy muy muy muy euh, bis bi ñuy ñaanal al amin mhm. waaw bis boobu ci ëpp doole ndax bu ñu fàttalikoo Hadji Mansour Gueye ngi nii sama wet dañoo ñëw ba euh, al amin euh, génn àdduna ñu profité ñëw ci xabru bi doon ko daaj mhm. biñ koy daaj daal di tàmbalee daaj dem ba nit ñi commencé ñëw maag Hadji Mansour mii ñu génn bi ñu génnee ma mu daan ni ma ah mbaw kom ñun daan nañu faral daan joxe ndox est-ce que duñ jéem a def ndox man ko ankay ah, ñu dem jënd nag suñu juróomi sase indi bala ñuy egsi ci xabru bi fi koy daajee tubarkàlla ndox ma jeex ñu dem góorgóorluwaat defe naa moom moo dem jëndaat ñu indi bala ñuy egsi mu jeex ma ne ko ah kon tey ñoo dem kër ga buñ ñu daal dem kër ga daal di jël ay soo def ci galaas yor suñu ay pot yu ndaw loolu daanaka di gën a yokk cosaan li loolu ci la bokk balaa booba daan nañ ko def ci ay ci ay ci ay ci ay nu bu ñu gisee image yi sax di nga gis image yi gis ñu ñun xam ni lii bañ ko dalee door yàgg na waaw du jamono yi ba pare aussi tamit solidarité bi yamul rek ci xadara bi ndax ñun ci suñu biir képp koo xam ne am na ci xew muy xew bànneex muy xew naqar muy xew bu xew bu mu bu mu doon gars yi dañ ciy taxawu comme niñ comme comme comme ni ko si ay waajur taxawu lépp lu ca nekk dañ koy def lépp lu cay togg dañ koy togg yàq ya seddale ko. ba noppi kenn ku ci nekk jëkkati sa ñaq daal cay def. loolu mooy loolu solidarité. waaw ñoo bëggoon xam tamit euh, kii mouvement bi ba xam dafa am président. Mhm. ak trésorier. Mhm. wala ay secrétaire ak yooyu noonu. waaw loolu amuñu ko. coordonnateur la ñu am ak ak euh, adjoint coordonnateur. ana adjoint bi. adjoint bi moom moo nekk noonu de Hadj sur Gueye. soo Gueye ñu lay ger nahnu kazaalika. baa yaa ngi am jàmm. ñu ngi sant bu baax. Euh, mbir mi tey dafa mel da laa bett. waaw bett na ma moom. ah bett na ma waaw. waaw Étoile mel noonu ndax euh, moom fu mu jëm rek ak lépp lu muy def rek day bete tey nag euh, ñu ñëw ngir bëgg a waxtaan ak yow li jëm ci wàllum ziar général bi seen tiyaaba gi nga xam ne moom ngeen di def di ko bokk ak doomu aadama yi. waaw Assane loolu boo ñu ci waxee dinañ ci sawar lool. Hmm. daanaka ni dañuy jël suñuy kàddu sax di ko sof ci kàddu xaasi Habib Mbaw mi li mu wax lépp. Hmm. ndax daanaka ni l'essentiel bi wax na ko ñun nag li nga xam ni moo ñu yitteel mooy gan guy ñëw Tiwaawan wala gan guy ñëw ci kër seex Seydil Hadji Malick gi boo ñëwee doo jaaxle ci lekk wala naan loolu daal mooy suñu yitte ci mboolem xew-xew yi fi am di ziaru asura di ziaru général ba ci ziaru daara ji ak lépp loo xam ni kër Cheikh Seydil Hadji Malick xewle na ko buñ ko yëgee dinañ ut suñuy sase ndox ñëw def ci suñuy gala seddal jox gan ñi dinañ am ci li ñu am ci suñu mu néew mu bari ci suñu xaalis dinañ ko togg ci ay lekk ndax am na boo xam ne su ma juumul kus-kus lañ defaroon boobu siyaaru asura la woon ndax da doon am ñuy woor ko defee ñu daal leen koy jox ñu ndogu euh, waaye daal lépp loo xamante si nii moom ñoo ngi koy def ñun ci suñu biir kenn ku nekk da ngay génne sa xaalis joxe ba pare ñu boole jënd képp koo xamante si ni xam nañ la dinañ waaxu ba ci yow ni la ah ñu ngi def nangam boo ñu mënee dimbali nga dimbali ñu bari na ñu nekk Tiwaawan ñoo xam ne saa yu ziar bi ñëwee dañuy dimbali ci li ñu am ci seen doole waaye bu ma sañoon tamit ndaw lu dëkk Tiwaawan wala mouvement bu nekk Tiwaawan nga ànd ci loolu ñu taxawu gan ñi ndax gan ñi ñëwaluñu kenn ñun waa Tiwaawan la ñu ñëwal te gan bu ñëwee da kaa war a le gan warul ñëw di ñibbi waat ak xiif wala muy ñibbi waat ak mar ñun nag dañoo gisoon ni bi fi comme li mbaw wax bi al amin gaañoo nit ñi bari naanuñu ndax kenn talu ko woon ñu ni nañ dem jënd ji juróomi sasay ndox jox ñiy daaj affaire bi ñu naan bi ñu koy indi nit ñi sëqatoo ñu naan ko ñu xam ni nit ñi mar nañu ci la dem ut ndox ñëw di jox nit ñi yàlla lawal ko lawal ko lawal ko ba fii ñuy ñaan nag mu jëm kanam di ñaanit képp koo xam ni yaa ngi biir Tiwaawan gis ñu boo ñëwee ziar général boo ñëwee fii ci wetu parkin bi fi oto yi gaare lépp loo bëgg nit ñi jot ko séddale ko dinañ ko séddale ndax dina am ñoo xam ne Assane dañuy toog ci biir tànt ba wala ñu toog ci biir saal bi bëgg a naan mais xalaat nañ ni bu ñu jugee ñàkk seen place du ñu mën a jug ñun dañ leen di ba fekk fekk ba fa ñu toog ñu yëkkati sase ndox jox leen ñu naan toogaat loolu nag mooy suñu yitte ah loolu daal lañu amoon loo xam ni mën nañ koo wax jërëjëf kon dal euh, bu déggé wax ji bu baaxa baax moy que ni euh, daayira yi ak mouvement yi ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñi taxaw baawu ñu leen ci ndax li ñuy def lepp ñun ñoko bok bokk te it ben la macha allah ñu rañé ci ben kilifa macha allah ñu wax ngañ momit euh, ñukay gis ci biir mom nak dama sétlu ni jour ba day mër ndax mom moy circuler di wër syndicat yi di xol ban mo jeex pour mu mën doli dolliwaat ndox ak glace ngañ ñing nuyu. ñu ngi waaye yaa ngi am jàmm. yaa sant bu ñu gis ni yow jour euh, ziar ak euh, jour euh, li ci mel ni yeneen programme yi dañuy gis ni maanaam yow yaay wër ci syndicat yeeg yooyu noonu di ci def ndox ak yooyu. gannaaw ban sant ñëpp di gërëm ñëpp. Mm-hmm. ni mbir mi ku si nekk daa am foo féete. Mm-hmm. ñii ñoo ñooy dox wàllum course yi. Mm-hmm. ñii ñii ñooy ñooy ñooy accueillir gan yi. ñun nag yàlla dafay ñooy ñooy joxe wàllum ndox mi. parce que instant yii nii syndicat bu vide ñoo ko war a remplir loolu suñu devoir la ñi sa tànn ñi sa même ñi sa biir tànn bi sax ñooñu sax suñ suñu devoir ñun pour ñoom ñu mën a am accès si ndox mi loolu loolu moo tax su ma sañ ñëpp jàpp si parce que ñun bu fekkoon suñu bopp moo ñu tax a jóg comme comme comme léegi ñu eh, aw nañ feneen kon kon aw nañ feneen mais instant lii nii mbiru yàlla la ñun séntu wuñ si kenn ku ñu gërëm mm. ndeysaan nii ñun ëllëg dañuy dañuy tukki ji te bëgg nañ bu ñu tukki encore li ñu leble fii bu ñu àggee bëgg nañu ko ko nu ko fay te ituma sañ waa dëkk ñëpp jàpp si ñëpp jàpp si daal waa dëkk bi ñëpp jàpp si ñu ngi kontaan bu baax a baax dégg ngeen kàddu yu am solo yooyu mu yëkkati kon euh, yéen ñi nga xam ne yéenay seetaan étoile TV bu ngeen gisee message bii nii rek ngeen jàpp ci ak lépp lu mu mënti doon képp ki nga xam ne sa poos euh, toll na foofu rek nga dimbalee ko ak lépp lu mu mënti doon muy euh, kaasu aseté wala muy suukar wala muy ndox lépp lu mu mënti doon wala muy mbuur wala muy pot chocolat wala potu beurre loo am rek indil boo ñëwee boo leen fekkee fii euh, ci buntu résidence bi jumaay sëñ Babacar Sy en face parking bi incha allah ñu ngi foofu noonu chaque ane foofu la ñuy toog kii nag euh, mooy Baye mbay macha allah kooku moo yor euh, jagarta bi moom moom tamit day circuler di dem di jëlee affaire yi di indi parce que am na ñoo xam ne dañuy dem di woote waaw daanaka daanaka moom jàmbaar la ci bu baax a baax ndax nee nañ li ci ëpp moom mooy dem di lijjanti ay glace ak glace mu seddee ak ni mu diisee mu koy teg ci moto beeg yooyu di di indi dañ koy bàyyi moom it mu sànni ci ay kàddoom bu noppee jox maman daal di tëj jotaay bi acca Baye Mbaye ak sil ñu ngi lay delloo siyaar lu bari mhm. di wax ni mbir mi daal mbiri ñëpp la mhm. te mbir mi it mbir wa Tiwaawan la te solidarité lañ wax mhm. solidarité solidarité la képp kuy doomu aadama koo xam ne bañkat nga te nekk Tiwaawan ñu ngi la ciy woo képp ku yor loo xam ne nit ñi daawuñu ci jot te bëgg nga ñu jot ci bu la neexee bul ko def xaalis def ko bagage indil ñu ko ñun teeru gan ñi rek moo ñu intéressé soldaaru Serigne Babacar Sy lañu ay solidarité lañ def li ñu ñor intéressé ñu mooy teral gan ñi ñëw Tiwaawan lépp lu ñu am ci doole ak képp ñu yaakaar ni am nga doole joo ci mën a def pour gan ñu kontaan dinañ ko def ci kàttanu yàlla ak mbaaxam loolu kese moom mooy suñu te ñu ngi ci woo képp kuy taalibe nag ak képp kuy soldaaru Serigne Babacar Sy bëgg a liggéeyal kër Seydil Hadji Malick kàddu yi rafet na macha allah bu ko defee dañuy jox maman bi nga xam ni euh, nee naa la café gi bu neexee moom la bu safee suukar moom la waaye tamit euh, couscous yeeg ñoom seen ak ñoom yu saf yeeg ñoom beñe yeg yooyu yëpp nee naa la moom la mi ngi nii équipe baa ngi ginnaaw waaye maman ñu ngi lay nuyu. macha allah DJ Zane maa ngi lay fay di nuyu waa Étoile TV Sénégal di wax que ni ziar général ku ko wax wax gan mhm. ku ko wax wax euh, ne. Sénégal wërngal këpp peut-être àdduna ñëppay ñëw mhm. ñu bëggoon tamit bonne volonté yi nga xamante ni si ñoom ñoo nekk ci dëkk bi mhm. ñu ñëw jàpp ci mhm. képp koo xamante ni si war nga cee mën a jàpp muy ci sa doole muy ci sa am-am ak lu mu mënti doon nga ñëw jàpp ci su jour ba incha allah ñu defee ko ni mu waree ay comme ni ko Mambay waxee ay soldaaru Serigne Babacar Sy lañ kon jëfe ndigal moo ñu war jour ba incha allah ñu defee ko niñ ko war a defee cat bañ ci dugg ci barke Serigne Babacar Sy kon gars yi bu ko defee rek euh, bu ko defee rek euh, dañuy bàyyi ki nga xam ne euh, mooy Mbaw mu daal di tudd quelque ci ñi nga xam ne ñooy membres yi ba pare bu jugee ci loolu tamit lancé benn message après bu ko defee rek ñu tàggatoo ba beneen yoon waaye tamit ma ci yokk leen di ko wax xalifa bi nga xam ni moo ñu jiite ki nga xam ni moo tax tey jii nii mën naa ni sax lii ñuy def tamit ñu koy def ndax ci njabootu Serigne Babacar Sy la bokk ndax buñ koy def sëñ Babacar Sy moo tax ñu koy def di ko woo di woo njabootam di woo képp koo xam ni nag yaa ngi biir Tiwaawan tey wuyoo ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadu rasulullah muy tijaan beeg murit beek ñëpp ñu ngi la ciy woo ngeen jàpp ci seen doole ak lépp lu ngeen mën a am te xam ni lii dina baax ci ziar bi wala boog dina jàppale ñi nga xam ni ñooy waa euh, association bi mouvement bi solidarité bi di leen euh, ci jàppale incha allahu rabbi soob yàlla aca mbaw waa assan liñ ciy dolli bariwul mooy que dañu bëgg a xamal ni que nii rek dafa am ñoo xamante ni néewuñu fi te comme nekkuñu ci jotaay bi buñ leen buñ leen buñ leen ci boolewul rek dafay mel ni liñ ci nekkul moo tax dëgg la ndax ku ci mel ni Seck Ndaanaan fi ne mu nga Louga Euh, As Diouf mhm. ordinateur bi mhm. Babacar Fadera mhm. Mansour Mbaye actuellement fi may waxee ak yow mu ngi mu ngi mbuur euh, ñoom ñoo yor daanaka daanaka wàllu wàllu duy ndox beeg yëpp Khadim Diop ñoom ba dara Mbayloo ah ak ba ci ba ci ba ci ba ci Maodo Sall. Mhm. ak ñoom Moussa. ñoom ñëpp nga xamante ni tey si ji tey ñu ngi ñu ngi ci biir solidarité. Mhm. ak Mansour Lo. Mhm. muy Soro Lo Alsane Mbaye euh, nga xam ni ñii daanaka ñoom ñoo sos solidarité. waaye nag am na ci ñoo xamante ne nag ay jàmbaar lañ yoo xam ni saa bu ñu wootee dañuy taxaw rek ñu yónnee ñu am ndox. yàlla xam na ko ku ci mel ni mbay mbay mbay Thiaw. mbay Thiaw mel ni électricien. mu jot. fii la ñuy woor yónnee ñu ndox mi Baye Saliou Niang mook sama waay jur bu góor ñoom tamit fu ñu xam fu galaas nekk ci ci Tiwaawan ak li ko wër danañ ko yeb ci seen i moto indi ko ku ci mel ni tamit Sóora Fall ak Moussa ñang mi nga xamante ni saa bu ñuy wootee bay ci armeel yi moo ca mën ndax ay otoom lay indi duraate ko ñooñu saa bu ñu wootee ñun waa solidarité yàlla seede na ni ñoo ñooy ñëw teg ci loxo te niñ ciy tegee loxo mooy coordonnateur baa ngi nii adjoint moom mooy recevoir lépp lu ciy nekk ku ci am looy joxe te yàlla rek tax bul ko def xaalis defal ñu ko ay bagi ndox yu bari ñëw tegal ñu ko fii wala nga defal ñu ko tubaarkàlla pain au lait bi du bari wala nga defal ñu ko teraanga yoo xamante ni day ñëw tegu fii nga xamante ni sotti ci ak def ci lay doon day jóge ci fii dem ci biir kër gi ñun loolu nyi ñuy sàkku ñëpp. Mhm. di ñaanal aussi tamit Abdou Aziz Ndiaye. bonheur bonheur ngeen di commencé. Abdou Aziz Ndiaye ndax mhm. gis nañu barki Demba Ndiaye. Mhm. li mu def ci xabru sëñ Babacar bi. barki Serigne Babacar dama koo gis sama xol sedd guy. ñu xam ni euh, sëñ Babacar daal am nay jàmbaar. waaye nag li ma koy ñaan moom Aziz. Euh, yàlla na dégg kàddu gi. mooy dañuy gis ziar bu bu bu jot. dañuy am jafe-jafe galaas. nañu dimbali ngir yàlla. bu ñu manee wàcceel fii benn benn frigo glace mhm. bu ko defee te yàlla tax baax na mhm. ñu ciy mën di tibb di seral suñu ay glace mën a jox gan ñi. incha allah euh, ban heure lay commencé. waaw parce que ñun huit heures lañ fiy ñëw. Mhm. huit heures ba ban heure ba nit ñi ñibbi. ba nit ñi ñibbi ngeen doog waaw dañuy am na ci année boo xam ne sax fii lañ toog naan kaay leen naan doxu teen bi. nit ñi génn ci tànt bi ñuy dem. Euh, ca teen ba dem ca teen ba. Mm-hmm. di tànk doxu teen bi. di mm-hmm. gàddu ci paan yi. Mm-hmm. jàmbaar yaa ngi nii daal ñii daal gaa yaa ngi macha allah. <laughs> macha di kontan bu baakha baax di bég batay, euh, di kontan ci yeen yi nga xamni yeen ñi ñuy ci Étoile TV Sénégal di gërëm ki nga xamni euh, mo yoron euh, walum cadrage bi ñu wax Ndongo Mboup lumière ñu wax Cheikh cham di leen sant di leen gërëm bu baakha baax mom Baye Fall boobu sax momit mi ngi ci talibé talibé Cheikh Ahmadou Bamba la taalibe Cheikh Ibra Fall la waaye moom it lu mu am ak lepp lu mu doon mi ngi koy def ci bës bobu non di ziaru Serigne Babacar sibi Cheikh cham tamit nonu Gassama tamit nonu keneen ak keneen nonu, keneen ak keneen nonu kon daal ñu ngi woo ñëpp ñu ngi woo ñëpp képp ku ci mën a jàpp ak lépp lu mu mënti doon boo ko boo boo ko waree joxe numéro baa ngi daw ci suufu écran bi boo jëlee numéro boobu rek boo ci wootee incha allahu rabbi lépp dinañ ci jot bu soobe yàlla su weesoo loolu tamit dégg nga ni ko mbaw waxee muy xaalis muy pain muy lépp loo xam ni euh, baggi ndox la muy lépp loo xam ne glace la na ngeen ko indi jàppale ko ñi nga xam ni mooy waa solidarité ci bésu Serigne Babacar Sy boobu rabbi yàllaahu taala anhu maam Fatim Mbaye ñu ngi la ciy woo yow taalibe Serigne Babacar Sy boobu macha allah ak Petit Mbaye